asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ak mbokk internautes yi ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ci kóolute ak taamu ah, bi ngeen ñu tàmm ah, ñun la TMS TV donc nag ñu ngi ah, ci ki nga xamante ni moo di Mame Mactar Guèye donc mu nekk vice président l'ONG Jamra donc mu nekk ki nga xamante ni tey àdduna wérngal képp kenn du ko natamble ci xam-xamam ci combat bi muy mënee fii ci Sénégal ak ci àdduna. lu ko wër donc mu nekk li nga xamante ne tey ñu nar a moom waxtaan ak moom ci seen émission grand entretien donc ci loolu ñu bàyyi euh, ki nga xamante ni moo di monsieur Mame Mactar Guèye Jamra mu daal di présenté wu asalaamaaleykum monsieur Mame Mactar. waaleykum salaam soxna Sarata Aydara xanaa di am mbégte rek ci euh, seet si bi ngeen ma seet si nga ànd sa ay technicien mm-hmm. ngir ñu mën seq laaj ak tontu. ci loo xam ne aju na ci wàllu actualité. di am yaakaar rek ne simili yu néew yuñ fi fas yéene weccoo ay kàddu. mu jariñu ñun ñi ci plateau bi kazalika mboolem téléspectateur u TMS TV incha allah. kon euh, jërëjëf euh, monsieur Makhtar Gueye moom mi nga xamante ni àdduna yi wéral képp ñëpp xam nañ ko. donc ñu laaj ko li nga xamante ni moo di maanaam sa présentation nga defar ñu sa présentation euh, kan mooy Mame Mactar waaw jërëjëf euh, Sarata euh, Mame Mactar Gueye day seen mbokk ab taalibe la bu xeebu buy góorgóorlu di roy ci mag ñu baax ñi di góor góorlu itam di ànd ci ñi nga xam ne dañuy ittewoo di sàmm suñu ay valeur Eh, ñu di ci def suñu kéem kàttan mm. ngir aar njaboot gi ak tamit eh, dànkaafu lépp loo xam ne dafa nar a tilimal malaanul islaam mm-hmm. eh, kuréel gi nga xam ne ci la ñuy yëngatu nag ñu di ko wax Jamra ñu ngi ko sos ci atum 1983 ci mois de février mm-hmm. waaye ñu bari li ñuy réere mbir mooy Jamra judduwul rek nekk ONG comme ni ko nit ñi xamee tey Mm-hmm. sa njëlbéen nga Jamra ab journal la woon. Mm-hmm. journal journal boo xam ne. Mm-hmm. dafa nekkoon journal boo xam ni euh, magasin la comme ni Jeune Afrique mel rek. ñu tuddee ko Jamra avec comme sous-titre la revue mensuelle des dossiers sociaux. Euh, comme ni ngeen ko déggee maanaam weer bu jot dañuy jël benn thème bu itteel askan wi ñu toj ko faram-fàcce ko. alors évidemment li ñuy jëkk a xàmmee mooy xeex contre mbirum sinébar muy affaire drogue mhm. nga xam ne ci at mooma lëmbale woon euh, bërëbu jàngukaay yi yi ak université yi lycée yi di fa def ay dégâts muy jur ay rupture scolaire sans compter nag euh, ci biir dëkk bi ni mu bokkee ci liy yokk violence bi na xam nga ko àndul ak sa sago doo xam loo moom ak loo moomoon Euh, ñu daal di tàllal suñuy micro ay anciens drogués repentis ñoom tamit ñu jox seen expérience pour wax naka la leen seytaane lalale ay ndëgg sërëx ba ñu dugg ci mbirum drogue ak tamit naka la leen yàlla dimbalee ñu fippu ba génn ci alors deuxième numéro bi ñu jagleel ko affaire jigéen ñi jaay seen bopp ñun ñu défendre leen ne bu leen di ŋaññ koo leen gis mu nekk ci natt boobu ndax il faut nga xool démbam ba xam lu ko ci dugal parce que am nañ ci ci bari dañ ci dugg pour des dañu nekkoon ci ay problèmes économiques yu garaaw ñii dañu ñàkk seeni i wayjur amuñu lu ñu dundalee njaboot gi ma ne ñii nag mbon rek leen ci dugal alors ma nekkoon nag bu ñu jàpp ñëpp def leen ci même pañi euh, troisième numéro bi nag foofu la ñu amee problème mooy dañuy dugg ci mbirum franc-maçonnerie def enquête ba loqati seen siège ba ñuy réunion fële ca ginnaaw euh, assemblée nationale diggante assemblée nationale ak lycée Vanvo ñu di ko wax tey lycée Lamine Gueye fexe ba sàcc fa liste de présence seen benn réunion alors euh, ñu publier ko parce que nit ñi dañ doon wax naan Jamra nee na am na liste formation yi waaye day coow rek yorul dara mm-hmm. ñu mujjee nag def loolu Kocc Barma di wax werante xooxante ki tubéy ba liste yi génnee nag dëkk bi coow li kenn mënul nu mu toll. coow li ne kur. alors euh, euh, franc-maçon yi nag porté ñu plainte. Hmm. procès bu rëy la woon euh, en 83 waaye nag ci ndimbalu suñu avocat maître Babacar Niang maître Kabibel Diouf ak ci ndimbalu maam Abdoulaye Sy baax sëñ Abdou Lahad Mbacké ak Baye Seydi caw ñu daal di gagné procès bi. alors activités yi bari nag ba xale yi lycée yi dañuy woo. bu ñu def seen journée culturelle pour ñu leen defal conférence sur tel thème sangam ak thème sangam sur la délinquance bi juvénile sur euh, la culturation ba mu yëgi ñu ne daal journal doyatul mm-hmm. nañ ko soppi def ko ONG alors ci la ñu def ONG bi ci atum 1992 mm-hmm. bu ko defee nag euh, taxawaay Jamra gën a yaatu bien sûr ñu ngi continuer di xeex yu bon yi ak yi yàq jikko yi lu demee nii drogue bi lu demee nii mbirum borom ñaari tur ak lu demee ni franc-maçonnerie yi waaye nag léegi à côté Jamra dafa am action sociale mooy dañuy def de la médiation sociale xëy na yi ci gën a siiw rek mooy problème mu euh, ancien combattant guerre golf bi 93 ñàkk nañ seen bakkan ci grève bi euh, ci guerre bi léegi mu am 93 veuves yoo xam ne Arabie Saoudite par esprit de reconnaissance dafa yónnee woon ay ndàmpaay pour ñu dimbale leen ko mu am fii ci état bi ñu wow xol lekk ko détourné ko waaw bindoon nañu lettre président Macky Sall mu boole ñu ak euh, Augustin Tine ki nekkoon à l'époque le ministre des forces armées après dossier ba jóge fa jëm primature voilà kon nag loolu quelques exemples rek ci jaar-jaaru Jamra mhm. euh, mën nañ tënk ne kon ginnaaw xeex contre valeurs yi mhm. waaye itam euh, dañuy am taxawaay bi l'islam digal mooy la solidarité et l'entraide voilà euh, donc en quelque sorte en résumé loolu loolu mooy euh, le parcours de Jamra macha allah donc ci loolu itam euh, ñu bëggoon rek itam nga defal ñu résumé ci sa parcours. alors man sama parcours lu simple maa ngi defee sama école primaire fii ci école Kléber. Mhm. bi nekk ginnaaw cathédrale de Dakar. sama circuit secondaire maa ngi ko defee lycée technique de la Delafosse ensuite. Euh, Euh, ma postulé woon a une bourse pour poursuivre mes études à l'étranger parce que jamono booba euh, informatique defal développé wu fi woon te man loolu moo doon sama passion les nouvelles technologies de l'information et de la communication alors par chance euh, ACCT agence de coopération culturelle et technique mooy tur bu njëkk ba ñu jagleloon OIF organisation internationale la francophonie te ancien président Abdou Diouf jiite woon ko donc bi mu tuddee HCCT donc ma postuler ci benn concours bu amoon bari woon nañu nag y avait des centaines de candidats waaye à peu près une cinquantaine ñoom lañu ñu mujjee jox ay bourses alors ñii ñu yóbbu leen Maroc euh, ñu doon def aviation wala BTP euh, travaux publics ñu yóbbu leen Luxembourg waaye man ñu ma affecté woon Belgique waaw def naa fa juróom-ñaari at. Mm. yàlla dimali na ba ma fa jógee li ma wuti woon am naa ko. mu di diplôme droit commercial organisation des entreprises euh, informatique de gestion ba ma ñibbisee nag sama premier emploi moo nekkoon fii ñuy wax tey centre international du commerce extérieur euh, abréviation bi di CICES. E mm. te ñu gën kaa xam si turu foire de Dakar yàlla def euh, ma am un défi boo xam ne yàlla dimbali na ma ma relever ko mooy bien que mu nekk sama premier emploi dañ ma sasoon conseil d'administration daf ma sasoon pour ma créer le service informatique parce que avant may ñëw l'informatique n'existait pas alors euh, yàlla dimbali ma en moins de six mois ñu daal di raccorder la comptabilité la facturation les salaires ñu interconnecté leen en réseau comme ça déplacement yi daan am de bureau en bureau amatul ku nekk da ngay toog sa bureau rek di échanger des documents avec d'autres alors def naa fa donc 1 janvier ba deux mille euh, deux mille deux mille huit donc dix neuf ans alors bi fekk Ablaye Wade euh, jotoon nguur gi te comme que dama bokkoon ci mouvance présidentielle bi ci ñi ko doon jàppale. Mm-hmm. Euh, ma amoon posture bi Seydou Gueye am tey waaye nag ñun suñu Benno Bokk Yaakaar mu ngi tuddoon CAP 21 convergence des actions autour du président de la République pour le 21e siècle mm-hmm. Rahmatullah Alihi Iba Der am nekk coordonnateur bi man ma nekk le porte-parole. alors Ablaye nag dem ba rafetlu sama taxawaay parce que dama bokkoon ci ñi doon rendre visible son bilan euh, ak ñi doon défendre ses réalisations alors mu yokkal ma grade ma jógee bureau chef du service informatique daal di ñëw ci poste président de conseil d'administration ma occupé ko de 2008 à 2013 en tout ça fait 24 alors bi alternance amee comme koy euh, wala dafa wax ne ku falu fay say nit fal say nit alors bi Macky Sall fal nag ci laa fa jógee mu tombé juste ak euh, sama euh, limite d'âge mm-hmm. alors depuis loolu nag ci laa consacré wu définitivement ci activité Jamra mm-hmm. macha allah parcours bi rafet na donc dañuy daal di àddu itam euh, sagam wax nga ñu sa parcours te sa parcours macha allah riche na Euh, mais ci parcours bi gis nañu itam nga daal di focaliser wu ci beneen domaine lu bokkut ak maanaam nekk ci ay ONG tey lan nga ñu mën a wax lan moo la motiver ba nga dugg di di di mëne combat bi nga xamante ni moo di dàqal wala xeex lépp li nga xamante ni mooy ñaawteef ci société. waa xam nga boo ko seetloo bañ nañ ba tuddee ko ONG islamique Jamra. kon nag dafa nekk une ONG boo xam ne ñun ñu dañu am une orientation religieuse. E, te suñu diine e, suñu borom dafa santaane te jaarale ko ci e, kàddu gu tedd gu sang bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam nee na <clears throat> ginnaaw boo leen matalee seen juróomi ponk yi saxaadaat bi mu di prestation de serment particulièrement koo xam ne ci leneen nga nekkoon war a dugg ci diine ji porte d'entrée bi mooy nga def saxaadaat ashhadu an laa ilaha illallah wa a anna muhammadan rasulullah nga seede ne yàlla kenn la te ngën ji bi ndeef mooy ki mu yónni ñaareelu ponk bi ni ko ñëpp a xamee muy waxtu bi juróom ñetteel bi joxe azaka ñeenteel bi woor weeru koor eh, juróomeel bi eh, eh, aji makkatal mu karam medinatu mu ne wara bu la ko sa poos ak sa wér-gu-yaram maye waaye nag benn saaba laaj sang bi nekk waaw jullit bu lu matal loolu xanaa njullitam mat na mën naa ah, des na de mu ne ko waaw lu koy mottali mu ne ko jullit bi war na am ñetti taxawaay yi maanaam boo gisee luy raam jëm ci penc bi nar a yàq jikko yi wala nar a tilimal malaanul islaam Seydina Mohamed nee na waajib la maanaam obligation la pour nga jóg am ci ñetti taxawaay ñu ne ko ci naka mu ne danga nga ci war a opposé wu ñu ne ko ci naka mu ne fi yaddihi par l'action nee bu jàppandiwul nga nga def fii lisaanihi maanaam nga wax nga alerte mooy li jamra di def hmm. su jàppandiwul fi xal bi nga naqarlu ko ak sa xol ba suñu borom xam ne kii kat dafa néew doole rek waaye naqarlu na ko hmm. alors nee na nag euh, fi xal bi mooy le dernier degré de la manifestation de votre fois en Dieu mooy li gën a néew ci nga mën a fis fësal sa iman ndeysaan euh, fondateur yi euh, Jamra rahmatulahi Abdou Latif Guèye bu daan def ses conférences religieuses du Ramadan daan na faral di kaf sax naan normalement fi xal bi mhm. dañ ko war a bàyyeeg suñu maam yi màgget ba xubi nga xam ne amatuñu benn kàttan lu dul toog ci sajaada yore seen kurus mhm. waaye ñun ñi nga xam ne dese nañu akas néew mhm. kàttan ñu mën di yéeg di wàcc di poñante di dem ak ñëw di xeex ñoo war a jëfee fii yaddi yi di di pousse par l'action lépp nu la na tilimal malaanul islaam ak fii lisaan yi alors kon nag euh, loolu mooy code de conduite mooy carte d'identité de Jamra pour tontu ci laaj bi ma laaj lan moo la motiver ba nga nekk ci xeex bi kon nag dañuy mottali suñu jaamu yàlla macha allah mottali seen jaamu yàlla gis nañ ni sax ci say video wala ci say image sax gis nañ ni que yaa ngi sol t-shirt ak tubéy ngir rek xeexal li lépp li nga xamante lu ñaaw la mm-hmm. li nga xamante ni nar na lott doomi aadama yaa ngi koy taxaw waa Jamra ñu koy taxaw donc ñu ngi leen di féliciter bu baax a itam euh, mën nga ñu wax seen première victoire yi nga xamante ni mëne ngeen ko ci combat maanaam ci combat wu Jamra ak euh, moment boobu lan la leen def yéen waa Jamra su ma yeboo ne daal victoire bi ñuy gën a jox satisfaction morale victoire parlementaire la nga xam nga ñun dañu nekk di évoluer dans le champ de la société civile waaye nag par expérience dañu dem ba seetlu ne léeg-léeg bi toll foo xam ne dangay dem ba am le dos au mur mooy li Kocc Barma di wax naan pexe jeex na alors mujj gi ñu ne mais lii ñuy xeex muy sinébar bi di yàq xale yi di yàq seen jikko di kanasuloo xale yi di tas yi di yokk insécurité bi ba pare trafiquants yi si gagné ay milliards di ko recycler di recycler cet argent sale di déstabiliser économie nationale bi ñaata yoon la Jamra def ay marche ay prospectus ay conférence di dénoncer loolu jurul dara bu mu fi fekkee di Diouf ñaata yoon la ñu recevoir pour ko ñu proposer ko une augmentation des sanctions pénales ndax mu mën na jouer un rôle dissuasif contre les réseaux de narcotrafiquants waaye ay vague promesse mm. alternance am Ablaye Wade ñëw ñu ne ah, comme que gën nañu jege Ablaye Wade parce que bokk nañu ci ñu ko fal xëy na lii dana antu waaye ay vague promesse ci la lati Jamra nag toog def loolu wolof di wax taxaw seetlu ñu def benn séminaire de réflexion daal dina métier ndekete pencum ndawum réew mi di assemblée nationale fa nga xam ne fa la ñuy nase ak di noccee loi ku fa amul kàddu mais da ngay wax ba xotteeku rek ñu nekkoon nag comme que xeex nañu ba sës mbir mi nekk ci rek ah léegi nañu fexe ba franchir le pas voilà ce qui explique euh, le fait que Jamra wàcc dans l'arène politique en deux 2007 euh, après avoir créé une branche politique bu tudd parce que Jamra amul droit def politique ndax suñu statut mayuñu ko. alors ñu créé benn branche politique bu tudd RDS Rassemblement démocratique sénégalais ñu def alliance avec la coalition Sopi mhm. dugg assemblée nationale gagné fi benn siège ensuite euh, def un travail de couloir sensibiliser beaucoup de députés mhm. ça a pris un peu de temps parce que Latifa ngi falu député vice-président assemblée nationale en juin 2007 voilà ñu teg ci juillet août septembre octobre novembre rek on était prêt ñu daal di déposer la proposition de loi mm-hmm. à notre grande surprise opposition majorité ñëpp def bloc jàppale ñu mm-hmm. jàppale suñu député loi bi ñu voté ko c'est la loi 2007 31 du 30 novembre 2007 qui désormais criminalise le délit de trafic de drogue kon léegi dootul c'est peine complaisante de trois mois de prison ak yooyu parce que pour jël kaawu drogue bi gën a luxe ñu di ko wax euh, héroïne gramme bi rek quatre mille francs la. c'est-à-dire boo góorgóorloo ba dugal fii dix kilo ça te fait cent millions. alors vous imaginez bien que un narcotrafiquant day ba mu xoolee code pénalu Gambie daal ni eh, bi fi Yaya Jammeh nekkee ñu ne ñii de ay dof lañu vingt ans la ñuy tëjaate di ne ah sama drogue bi jógee Amérique latine nga xam ne yaa ko l'océan Atlantique à traverser pour ma dugg Afrique xaaral ma xool Nigéria. parce que ñoom ils évaluent les risques xool Nigéria daal la ñii ñoo gën a kànn su Gambien yi parce que ñii bu ñu la jàppee ça peut aller jusqu'à la pen de mort en fonction quantité bi nga yor daal ne ah, nañ xool code pénal Sénégal daal ne yaa fii de ay six mois fi ne te ku am un avocat bu xarañ comme mon ami maître El Hadj Diouf que je euh, nag huit cent millions jar na tëdd trois mois de alors voilà pourquoi le Sénégal pendant des décennies était devenue la poubelle du trafic sous-régional de drogue kon loolu extrait bu ma la récitel nii bu jógee ci exposé de motifs bi suñu député Abdou Latif Gueye fondateur de Jamra liiroon ba yàlla dimbal ko mu convaincre député ñu daal di voté loi bi c'est la loi 2007 31 du 30 novembre 2007 qui désormais criminalise le trafic de drogue dootul ay léegi 3 mois 6 mois léegi minimum 10 ans la assorti d'une amende qui fait le triple de la valeur de la drogue saisie kooku daal mooy la plus grande victoire de Jamra qui est une victoire parlementaire waaye nag am nañu yeneen petite victoire euh, assez récente par exemple euh, euh, boisson yooyu saay-saay yi daan jaay ci buntu école yi sous forme de sachet yi ñuy taafantaloo naan jus d'orange la wala jus d'ananas tuddee ko Jakarta comme que Jamra dafa bari ay enseignants Euh, ñoom ñu seetlu ne daal xale yi xër ci boisson bi te di ko jënd ci buntu école yi à cent francs ñaare seen jikko day soppeeku su dee dafa nekkoon xale bu xaw a timide xaw a kii réservé euh, day day commencé wow bët di di di werante ak instituteur bi su dee xale bu calme la woon pendant cours de récréation te ñun ñëpp jaar nañ ci ay dàqe na bu ak jigéen ñi jouer di sauter à la corde walla di an yi alors saa wu ñu gisee bu xeex amee bu leen àttee au moins kenn ci ñoom consommateur euh, jus yu Jakarta la loolu nag moo éveillé si ñun soupçon ba ma ci waxtaanee avec nos amis de ASCOSEN ñoom Momar Ndaw que je salue au passage association sénégalaise des consommateurs ñu ne daal la meilleure manière d'être édifié mooy ñetti école yooyu da ngeen fexe euh, école bu ne ngeen am fa benn échantillon ba ñu ko jëlee nag ñu dem ci benn laboratoire d' analyse fay une somme symbolique à peine soixante waaye ba ñu ko analyser ñu gis ni il y avait un taux très élevé d' alcool kon ndekete xale yi dañu daan màndi alors léegi nag ñu bind lettre président Macky Sall mu imputé ko à Aliou Sarr le du commerce kooku daal di def benn arrêté ministériel en date du 15 euh, septembre 2015 daal di interdire surtout toute l' étendue du territoire national. kenn dootu fi jaay Jakarta kooku tam victoire la boo xam ne une victoire récente victoire yi nag kenn mënu ko lim ba mu jeex ñu ngi préparé benn livre bu tudd parce que yàlla dafa dogal euh, février bii di ñëw ci la Jamra di célébrer ses 40 ans parce que je rappelle que Jamra ñu ngi ko créé en février 83 alors livre bi ñu ngi ko tuddee Jamra 2 points quarante ans de combat et de réalisation concrète alors su boobaa yi ngay laaj ci détails yëpp mhm. dina ci ne ak. Euh, suñu victoire bi en Casamance en 2002 ñu réconcilier euh, Abbé Diamacoune Senghor le patron de l'aile politique du MFDC ak Sidi Badji le patron de l'aile militaire voilà yooyu yëpp dinañ joxe tous les détails incha allah mais en attendant pour sa booy def sa montage mhm. te PC defe naa noonu ngeen ko tuddee des plans de coupe dinaa la yónnee euh, photo Abbé Diamacoune ak Latif mhm. bu Jamra ba mu demee def médiation ba jubalee leen parce que le MFDC ne parlait pas d'une seule voix te état du mën a négocier ak Diamacoune ba ñu conclure bu ëllëgee Sidi Badji def communiqué ne ça ne m'engage pas si l' état fait l' inverse ëllëg Diamacoune def communiqué ne ça ne m'engage pas ñu ne nag ce ping pong la li koy dindi mooy fexe ba ñaari leaders yi juboo loolu si si loxo Jamra la ko yàlla jaarale. dinaa la yónnee euh, photo bi dinaa la yónnee tamit photo wu. Euh, Euh, Jamra bi mu nekkee journal comme ça pendant les commentaires nga man ko nga mën ko illustrer voilà. bon bien sûr récemment nag léegi y a les les combats contre les dérives audiovisuelles mooy série yu bon yi. di euh, def la banalisation de l'adultère euh, l'apologie de la fornication sur fond de pornographie verbale ndax euh, série. tu veux. alors comme ça. Euh, série yooyu. jubluwuñu ci du buntu xataal producteurs yeeg actrices yi déedéet waaye dañu jàpp ne rek l'outil audiovisuel est tellement puissant. que mën nga ci def un travail très important d'éducation des masses. waaye à l'inverse mën nga ci yàq ay jikko yu bari. gis nga plainte boobu ñu déposé woon contre euh, Cirque Noir. pour la première fois dans l'histoire du Sénégal dans l'histoire du cinéma et de la télévision ñu gis ay jeunes yu tourné carrément de la pornographie alors euh, ñu defe ne ñu naan waaw Jamra mënu ci dara parce que génnul ci télé yi si YouTube bi la génn ma ne ju ngeen de waaw parce que la loi de de de 2002 18 du 25 janvier 2002 wax na ni képp ku rendre public par quelque moyen électronique que ce soit euh, euh, loo xam ne dafay porter atteinte à nos bonnes mœurs euh, di porter atteinte à la santé mentale et morale des enfants et qui piétine nos valeurs loi bi rëbb na ko dàq na ko alors loolu tax procureur jox ñu dëgg dal di activer la brigade de cybercriminalité yi parce que ba ñu defee seen caay-caay ba noppi dañu daw làqatu ji ñu daal di leen géolocaliser au niveau de Ngaparou fa lañ leen fekk jàpp daal di leen tëj 17 jours de prison alors jour procès bi ñu infliger leen deux ans de prison pour le réalisateur et le producteur avec sursis les acteurs et les actrices six mois avec sursis alors euh, beneen bi mooy réewu leen euh, kooku tam on l'a combattu ba arrêté nañ ko baaxul day yàq xale yi euh, série boo xam ne deux trois épisodes yi rek ñëpp a jommi te jotagul sax daw si télé yi ay euh, bande annonce la yu doon génn ci réseaux sociaux yi di mettre en scène des jeunes xam nga jeune en général bu dee ay acteurs lañu ci benn production jeunes yi dañu bëgg di ko seetaan parce que ay jeunes lañ comme ñoom mais malheureusement ay contre exemple lañu ndax c'est des jeunes homosexuels ñoo nekk les acteurs principaux Euh, di diw rosa ak fond de teint di émaayu di regeju ak di damay loxo ñoo xeex leen CNRA dimbali nañu ba arrêté nañ ko voilà donc yooyu aussi ci combat yu récent yi la bokk autrement dit bu ñu ko mënee résumé daal ñun dañuy góorgóorlu di jouer un rôle de sentinelle vigilante te am nañ ci droit parce que penc mi dañ ko bokk defarkatu série yu bon yi moomuñu nit ñi am nañ droit defar seen série waaye tubaab dafa ne votre liberté s'arrête là où commence celle des autres waaye doo jël li nga moom ba noppi nga ne la ma bokk ak ñi danaa fa ñëw caxat caxatee ko sama yoon naa ci am xaalis ça ne passera pas dëkk bi dafa am yoon voilà. donc ci loolu monsieur Mame Makhtar euh, gis nañ itam euh, gannaaw mën nga ay combat yu bëree bëri te nekk nga un combattant les plus les plus rares en fait euh, du monde entier donc nga ñeme li ngay def ñeme li ngay xeex li ba tax ni tey euh, mësoo am li nga xamante ni maanaam ay ndigg sa rëq wala lu lu jëmale ci ay menaces wala ay diffamation waaw loolu moom du mën a ñàkk parce que xam nga ñoom bu ñu la jéemee guerre yàlla dimbali la nga nekk ku nga doylu ñu échoué ñu ne dañ lay may oto nga ne baax na ñu xëbal la ça ne marche pas ñu daal di financer ay góor jigéen yu nekk sa diaspora bi ñuy def ay live di yàq sa der yàlla dimbali leen ñu échoué yàlla dimbali ñu échoué parce que dama leen piégé xam nga maa fii daf fi amoon coow ndax dafa am bés contrairement à ses habitudes mu euh, génnoon defi son jogging à côté ci euh, centre aéré bi waaye mu demoon prolongé jëm ba Yoff Layène parce que dafa am une amie boo xam ne c'est une ex voisine parce que foofu dëkk naa fa dix ans dañuy kon bien que déménagé naa ñëw fii waaye ñoom ba tey dañuy demalante dikkante mu jaar fa doon nuyoo rek tombeek ñu am anniversaire la xaw ma mu toog fa ndeke fa la toog nelaw fa son téléphone ne répondait plus comme que mësu koo def parce que fii amul toog 10 jours say waajur duñu la gis te du leen yëngal fii loolu amu fi dafa vingt quatre heures rek ma yëngal dëkk bi yëpp man mii maa def annonce ci réseaux sociaux yi mais ma fille a disparu ba yemuma ca ma saisir la police xam nga ku am loolu nëbbatu doo def loolu maa ngi remercier au passage euh, le commissaire Bara Sankaré de la sûreté urbaine jàppale na ma ci ñu laa di lancer avis de recherche yi ma réseaux sociaux yi riir waaye daal dañu toog ba lendement lendemain euh, suñu voisine bi woo ma ne Maxtaar lu xew ma ne ko mu ne ma réseaux sociaux yi maa ngi digg rek ñu naan doomam dafa disparaître ma ne ko mu ne ma sa doom a ngi ma ne ko ci lan mu ne ma fii la fanaan dem ma ne lu tax waxuma ko mu ne ma téléphone ma fay ma ne ko ah def na faute parce que lii ma su ko def waaw anamu mu ne ma maa ngi nii sa buntu kër ma ne ko waa soneel ñu ubbil la ñu sone mu daal di ànd xale bi ñëw. par loyauté ma woo police euh, commissaire Bara Sankhare ma ne ko waa commissaire euh, commencé gu ma expliquer sax mu ne Makhtar sois patient ñu ngi koy recherché lancé nañu avis de recherche frontières yeeg partout policier commissariat yi ak hôpitaux yi mu ñël ma bàyyi ko ma ba ne ko waa xale bi feeñ na ah bon nu mu demee anamu ma ne ko mu ngi nii taxaw waa indil ma ko ma wax ak moom parce que xale yi foo lee di leen yadd ak di leen sermonné pendant ma koy yóbbu dañ jëloon taxi fekk booru 16 h jot RFM di def son journal wolof chauffeur bi jàpp RFM chauffeur taxi bi ma dëgg euh, animateur bi journaliste daal waaw alors euh, affaire euh, doomu Makhtar Gueye bi disparaître il y a du nouveau le commissaire le lieutenant Diassé Dioum de la police donc s'est exprimé en lui tend le micro mu ne oui on a fait des recherches avec nos appareils on l'a géolocalisé dans une auberge fa lañ ko fekk kii ko retrouvé ko xoola yi fen <laughs> te xale baa ngi ni topp maag moom ci oto bi eggaguñu sax ba ñu eggee ma ne commissaire parce que j'ai pris soin bi ñu ne que waa ji day exprimer wu ma daal di jël sama téléphone jàpp RFM enregistré ba ñu demee ma ne patron waa kii toj toj yi mu yox nañ mu ne ma alum ah, wax ma tegal ko ko mu ne ah mais c'est pas possible ma ne ko nee na yéen a retrouvé xale bi mu ne ma non c'est pas nous yow yaa ma ko indil par courtoisie alors que tu n'es même pas obligé de le faire ne ko ah, lu tax mu def lii dëgg la suñu combat am nañu mu neexul et tout mm. waaye attaqué leen bàyyam mais il faut pas la lâcheté de s'attaquer à une petite fille qui a à peine 18 ans mm. waaw corriger ça ma ne ko boo leen ko corrigé wul suba ma woo presque alors bref famille bi naan jarul ngay tiire trop comme que euh, annoncé nga dans plusieurs euh, télévisions ce qui s'est passé alors bàyyil mu jàll alors léegi nag ay dara sa naataango bi euh, nekkoon correspondant RFM à New York par hasard mu ñëwoon fi vacance mu dégg coow li parce que suma xarit la mu jaar fi di ma masale si coow li daal di ci profité ci xolom bu rafet ne ma waxtaan naa ak suma jabar léegi daal comme que yow da nga ne si ay combat ta fii la il faut l'éloigner de tes champs de bataille dama bëggoon daal sama jabar dox na affaire yi ba noppi nga indi ko New Jersey fa ma dëkk man Baba dara ñu utal ko école bu baax mu egg li njàngam comme que elle est passionnée de la série euh, S série scientifique possibilité yi bari na ma ne ah, loolu day rafet na ñu daal di jël photo ñu photo ñu fekk man amoon naa njort ni eh, ñi def lii eh, naru ñoo yem ci lii ma daal jël photo bi posté ko ci Facebook ma ne ah gars yi na ngeen ma remercier Baba Aïdara vraiment la proposition bi mu ma def c'est très généreux ñaanal leen ma ba affaire ba siiw góor jigéen yi ne diaspora yëg ko seen benn audio fuité ci bi seen benn groupe WhatsApp naan laaj doom ji day ñëw États-Unis ñun de États-Unis la ne tey lay xam nag dinañ ko utal far dinañ ko yóbbu ci milieu yu bon yi dinañ ko yàq dinañ ko photo dinañ ko vidéo ndax baay bi tëj gémmiñam sonal nit ñi alors ma bàyyi leen ba ñu laal seen plan ma daal di annuler voyage bi te ñoom yëguñu ko ñu toog deux jours nag def benn audio surtout seen commandant en chef bu mag bi Pape Mbaye la xaw ma góor jigéen def audio 30 minutes. <laughs> Ah, ah. doom jaa ngi fi tey tey yépp leer dem nañu ba xam fa mu dëkk koñ ba mu dëkk am na nangami far mu nga fay jaay boppam nit ñi dañ ko dégg waaw samay mbokk naan mais kii li muy wax nii xale baa ngi fi waaye doo wax ma ne déet bàyyi ko mu tabax ba fen bi kawee foofu la daxee muy tabax di fen ak di ci boole yeneen Jamra créé Enda te Enda day jàppale góor jigéen ñi kon Jamra seen taxawaayu leerul ratatatatat alors léegi yeneen góor jigéen dugg ci góor jigéen yooyu di peinture seen karaw yeeg di xob bi seen tuñ yi waa diaspora bi góor jigéen yépp jóg ma bàyyi la ñuy wax rek ba am bës nag ma daal di woo sa ay naataango jàppatuma ban média en ligne la ñu ñëw posé ma question ma daal di woo xale bi ànd nga mu ne maa ngi ma ne ko kaay mu daal di ñëw ma ne journaliste xale baa ngi ñu ne ma ah mais ba Mbaye ak et consort nee nañ xale baa ngi États-Unis ma ne mu ngi nii waxuma la Gambie bu jegee gi sax waxuma la États-Unis mais Gambie gi sax mosu faa dem ah bon ma ne elle n'a jamais quitté ce waa kon li ñuy wax lu ñu ci jublu ma ne fen yàq sos yàq der ndax combat bi jam te def neexu leen alors nañu am lâcheté nag nañu bañ am lâcheté di attaqué ma famille nañ ma attaqué man te bàyyi xale yi yaakaaroon na nañ ne dañu naan man dama bon dama ne lii waaye wër nañu wër gisuñu dara ñu ne nañu seet bunt ci famille yëpp ñu attaqué ko alors kon nag euh, ils ont échoué noonu laa piégé góor jigéen yi pour répondre sa question est-ce qu'il y a des menaces il a des nangam ils ont échoué mm-hmm. waaye nag wóor na ma ne bàyyiwuñu ñu ngi seet leneen ñu ngi seet yeneen pexe waaye c'est une perte de temps mm-hmm. voilà parce que combat la boo xam ne amul benn doomu aadama bu man tax ba ñu arrêté ko comme ni ko Latif daan waxee nee na moom man Latif je ne suis pas éternel yow Makhtar tu n'es pas éternel Imam Massamba tu n'es pas mais Jamra doit être éternel parce que ñun moomuñu ko c'est un patrimoine national voilà moo tax nag on est en de former des jeunes yoo xam ne euh, commencé nañ di def seen i preuve euh, ku mel ni Biram Traoré léegi moom moo may représenté ci émission mensuelle bi am euh, Walfadjri te ñu tuddee ko Black Label comme que ça s'adresse au monde du hip hop te te affaire jeune la mm-hmm. alors moom moo fay demal Cheikh Amadou Bamba Faye Euh, moom ma demaloon euh, Lamp Fall demal ma ci euh, Sénégal sa kanam bu Tunkara yooyu yëpp maa ca daan dem donc on est en train de décentraliser pour préparer la relève parce que nous on n'est pas éternel voilà kon nag li ngay wax c'est un combat qui n'est pas sans risque waaye nag c'est les risques du métier on l'assume et on combat à visage découvert bon uteeg lâche yi nga xam ne dañuy laqatu sous <laughs> l'anonymat nekk ci Facebook bi di yàq lu mel ni xamee Eh, balaa ngaa yaraate yar sa doom ma ne waa góor jigéen ñi la ñu waxoon échoué nañu alkaati bu dof boobu naan dañ ko fekk ci eh, auberge fenn parce que xale bi ba maa ko yóbbu eh, wan ko commissaire bi pour ñu arrêter recherche yi voilà ah. kon nag bàyyi leen wax jooju ngeen di wax alors ci loolu ñu wax ci wàllum actualité gis nañu 43 euh, sénégalaises yi nga xamante ni cité nañ leen ci wàllum euh, porta-potty euh, Dubaï donc mu nekk phénomène bi nga xamante ni Euh, ñëpp nakarlu nañ ko ñaawlu nañ ko itam euh, naka la Jamra gisee phénomène boobu ak itam lan mooy taxawaayu Jamra ci phénomène boobu. waaw loolu euh, du fi gulet. Mm-hmm. maanaam loolu tubaab di wax les les rendez-vous galants masalan góor ak jigéen am ku ci xemmam xemmem moromam walla ñu xemmem te di joxante rendez rawatina bu fekkee c'est de ñaari wax benn waxambaane ak benn njagamaar majeur comme ni ngeen koy waxee majeur et vacciné kooku en principe yoonu kenn newu ji c'est leur vie privée ñu kenn tooñuñu kenn alors euh, c'est c'est c'est un c'est une situation ordinaire boo xam ne du Sénégal rek mais partout dans le monde c'est comme ça te les amoureux du Dubaï rek la ñuy joxante rendez-vous waaye dañuy joxante rendez-vous feneen ak feneen Euh, boo gisee nag Jamra mosoon ci jëkk yëkkati kàddu concernant le tourisme sexuel de la Petite Côte c'est parce que saay-saayu tubaab yi dañuy ñëw di yàkkataan des filles mineures 16 ans 14 ans loolu taxoon ñu yëkkati ci kàddu mais sur le principe le les liaisons amoureuses ci ay adultes c'est bi vie privée seen diggante ak seen conscience la bu dee dañuy njaaloo yi tamit seen diggante ak seen borom la waaye nag la particularité du scandale du Dubaï euh, am na ñu ko ñu tuddee scandale bi euh, am na ñu ne euh, porta potty qui veut dire euh, qui est une appellation coutumière à Dubaï des toilettes mobiles Toilette. ça veut dire toilette mobile mm-hmm. wala voilà, euh, et cetera ñenn ñi di ko tuddee scandale bi Dubaï WC et le grand révérend ivoirien le pasteur Camille Makosso moom moo fi indi l'expression très taquine de le caca gang de Dubaï alors ku nekk ak ni ko tuddee particularité bi mooy lii kenn mësu koo gis daan nañ xam ay góor ak jigéen joxante rendez-vous du bàyyi ailleurs pour njaaloo c'est leur problème waaye dugal ci maa ngi doog a dégg expression boobu ndax sa naataango yi nekk C C8 euh, une chaîne de télé assez crédible qui fait beaucoup de chose dans l'actualité people te Cyril Hanouna euh, euh, animé ko ah, ci laa dégg benn boroom xam-xam bu ñu fa invité moom moo génne le terme de scatophilie ma ne luy ñu ne luy loolu mu daal di ko leeral nee na mooy une un comportement sexuel déviant caractérisé par une attirance vers les excréments et les matières fécales nee na kon ñi mepp jigéen ba ñu ñëw Dubaï ñu di leen defloo yu ñaaw yooyu c'est des adeptes de scatophilie alors naturellement bi scandale bi éclaté ba léegi témoignage yaa ngi jolli à travers le monde am na ay camerounais yu wax am na ay ivoiriennes yu wax ñi sous couvert de l'anonymat ñi dañu flouter seen visage waaye am na koo xam ne benn camerounaise la parler a parlé à visage découvert témoignage très utile parce que reconnaître na photom waaye itam mu war a nekk source d'inspiration pour ay nawleem ñu jël ci exemple pour ñu bañ leen a nax ndax témoignage yëpp dañuy tourner autour de de promesses qui leur ont été faites alors que ñu nga toogoon seen dëkk di wuti ay opportunités ndax kenn réerewul mbir ne dëkk bi àdduna bi dafa nekk en crise te am un impact très fort au niveau des jeunes diplômés sans emploi ba gis nga chez nous au Sénégal li ko màndargaal mooy le phénomène Barza Barzak y a combien de milliers de morts yu bàyyi seen bakkan ci géej gi kenn xamul nu mu toll kon xale yi tekki ak bëgg teraanga àdduna gis nga bu demee ba di leen jaral bakkan nga xam ne kon xeebu xeebuñu leneen mm-hmm. noonu nag foofu la ay rabatteur engouffré wu ñëw fii ci Sénégal et je rappelle que ce pas seulement le Sénégal qui a été impacté Il y a Sénégal, il Mali, la Guinée-Conakry, il y a le Cameroun, la Côte d'Ivoire et Burkina Faso. Alors, waaye partout foo dégg témoignage rek le le mode opératoire est le même ñëw ne la waaw am na ay milliardaires yu soxla euh, des emplois yu joxe des emplois domestiques moo xam pour arrosé jardin wala pour nekk gardien wala pour nekk mindaan ngay servir wala boog nekk baby sitting di garde ay bébé wala di surveiller des personnes de troisième âge alors évidemment comme que Dubaï la nga ne comme que ay milliardaires la ñu kon foofu boo demee salaire yi moom kal noonu daal lañu leen piégé waaye ñu ci bari ba ñu demee la ñu fa fekk ak lañu leen waxoon c'est diamétralement opposé am na ndaw su ne ba ma egsee waa ji daal dafa ma ni eh, dinañ la jël si aéroport waaye en attendant dinaa la yónnee billet d'avion nee na li jëkk éveillé soupçon dafa gis billet d'avion bi nekk billet d'avion première classe billet d'avion de plus d'un million mu ni ah simple euh, mindaan ah am na lu xew bref mu bàyyi mu jàll ba mu eggee am chauffeur bu ko jël si aéroport nee ko sa patron bi la war liggéeyal bi nga war a liggéeyal euh, nee na suba ngeen am rendez-vous mais en attendant luyeel na la benn chambre d'hôtel euh, journée tey bi moom euh, mën nga def say course say achat kii carte de crédit la parce que y a beaucoup de magasin de luxe kenn du fay avec de l'argent liquide mais dañuy fay par carte de crédit mu ne carte de crédit la pour un shopping illimité lu ñëw sa xel rek jëndal ndaw si dugg ci magasin yi jënd ay sac en cuir de, grande marque dem ci magasin prêt-à-porter yi nga xam ne les plus grands couturiers londoniens parisiens euh, ñoo fay jaay mu daal di ko jël maalu oto bi dafa fees ba amatul fu mu def bagage mu daal di ñibbi hôtelam alors euh, patron bi woo ko alors naka moo def nga say achat bon d'accord kon suba sama chauffeur na la jël si ndeysaan mu continuer kontaan daal ne ah lii day pour rien que domestique boo xam ne daal dangay nekk ci kër di fobe rek bale mu defal ma lii fekk xamul la kay xaar effectivement le lendemain chauffeur bi jël si ba mu ñëwee ba ne cëpp là le patron n'était pas seul ils étaient quatre ñeenti punkal voilà mu xamal ko nag ne daal vraiment dama la soxla rek pour euh, deux trois jours boo paree dinañ la jox dinañ la jox. Euh, vingt mille dollars voilà léegi nag euh, ñii ñëpp dañ lay war a tëdd mu metti ci moom lool nee na dama amoon de saignements partout après césure am jeex vingt mille dollars ça fait dix millions de francs CFA mu jël xaalisam dem kooku moo ci tanele waaye am na ñeneen ñoo xam ne dañ lay proposer ngay accoupler wu avec leur berger allemand ay xaj c'est leur vice kooku daf ko ne man soxlawuma la rapport waaye dama bëgg suma xaj ngay seq ak moom man ma toog di ko contempler di di di happy alors yooyu yëpp xëy na euh, mënees na ko mu muñaale waaye bi ci yéeme nag te indi scandale te lëmbe dëkk bi mooy Dubaay port bi mm-hmm. porta porta poti bi mm-hmm. mooy ñiy dem ginnaaw kër mm-hmm. ci sa kaw ndaw si nee na moom ba mu egsee ak liñ ko wax yépp waaye mu muñ rek ba patron ne ko bon voilà euh, egsi nga donc léegi dama la bëgg a leeral nii sox te ndaw si nee na sans fausse modestie man diw dama xaw a taaru jigi góor ñu bari vraiment ñu ngi may wut waaye li ma jaaxal milliardaire bi daf ma ne soxlaawuma la ci lal soxlaawuma la pour des rapports entre hommes et femmes soxlaawuma la pour relation sexuelle dama la soxla pour euh, parce que man je suis un adepte de la scatophilie wax naa ko sànq c'est une déviance comportementale sexuelle caractérisée par une attirance vers les excréments et les matières fécales maanaam ni déviance sexuelle bi ñu wax góor jigéen amee mu am déviance sexuelle bu ñuy wax lesbianisme amee am na déviance sexuelle bu ñuy wax zoophilie mois de janvier bi rek presse bi defoon na euh, couverture benn góor jigéen buñ jàppoon fii ci banlieue bi muy sëy ak bëy ni déviance sexuelle boobu ñuy wax nécrophilie am ñuy dem guddi corrompre gardien morgue yi di tëdd ak ay néew noonu la amee déviance sexuelle boobu ñuy wax scatophilie ndaw si ne ko mooy lan mu ne ko dama am laxatif boo xam ne dama koy naan dans quinze minutes. bu defee effet yow da ngay tëdd jaaxaan man ma jonkon sa kaw tiim la yebbi samay ginnaaw kër ci sa kaw. Mm-hmm. mu ne ko quoi mu ne ko voilà vous allez ne ko ah c'est après vous quarante mille dollars quarante mille dollars ça fait quand même vingt millions de francs CFA ndaw si xalaat. que mën na liggéey toute sa vie du am loolu mu ne naa ko dékku rek su paree ma daw gaaw sangu ji rapidement rek parfumé wu naar bi ne ko déedéet da nga koy lekk nee nag foofu la jommee mhm. et effectivement ndaw si waa ji obligé ko ne ko foog nga lekk ko mu lekk ko yépp avec beaucoup de dégoût mhm. nee na après mu gis waa ji jël téléphone am ku mu woo mel ni ku ku muy rendre compte que niñ ko ko waxee defee ne ko noonu nee na dégguma naar naar la doon waxal waaye dama am njort ne loolu la ko doon wax ñu daldi ko fay xaalisam ba durée de séjour am jotee mu daldi ñibbi sëram bi doon def témoignage yi parce que ki def toj toj bi na dafa def témoignage sous l'anonymat waaye sërëm nee na donte quatre mois après son retour euh, defatul yooyu waaye jëlee na ci wéradi ndax euh, am na ay dépression ak i insomnie ak des cauchemars la nuit ba pare nag di maigrir di feebar ba daanaka xaalis vingt millions yom fa jëlee yëpp ci ay euh, traitement ak paj ci lañ koy utiliser di maigrir di affaiblir di maigrir ba mujj gi dafa mujj ñàkk ba kenn kon nag loolu na ko xale yi xam yii ñu leen di dig soo demee di nga am place soo demee di nga am nangam boo leen xasee ba egg rabateur ba dootoo leen ko gis il disparaît dans la nature mu livrer leen à des pervers sexuels milliardaires yu leen di def looloo xam ni eh, xel mënu ko sax xalaat mu ne ko xoolal lii rek naa neefere sa kaw foofu nag li ma fay leeral mooy mbir mi affaire fétiche def si dugg ndax euh, gis nañ ba tey ay xeetu euh, traitement yoo xam ne suñu maama yi dinañ koy def masalan ku am problème ak jaar-jaaru àddunaam ñëw ci benn maaman ne ko man daal sama lépp tëju projet bu may yëkkati mu daanu Eh, lu ma lijjanti mu yàqu su ma demee sax ba dëgg ma takk jabar bu ñu demee ba lépp sotti la ko yàq duma xam sax lan la kooku ne ko dugal naa la ko listixaar yow danga nga umu loolu la koy dindi da ngay ñëw ba sàngam waxtu sàngam ma am traitement bu ma la defal wax bu xaw a niroog traitement wu jotale bakken waaye yow dañuy jotale say cat ak say ayib pour mu génn pour ça nag da ngay sangu jaanaba te fii nga koy sangoo alors ndox bi nga koy sangoo maa la koy jox dafa am lu ma lay wax nga sa jàng ko boo ko mënul jàng dinaa la ko wax nga di ko répété waaye waaja nee na lañ koy waxloo du arab du alxuraan kenn xamul lan la xam naa ay jat la bi mu pare mu ëf ko ci ndox mi sottee ko comme que du si toilette yi waaye ci benn paan ci benn baignoire la ko defee ba mu defee sangu jaanabaam nag maaman bi récupéré ndoxu paan bi sotti ko ci potu ndaa fekk am na bëy bu mu jëndoon pour pour ci ci ci cadre li muy def yi ñu yeew ko ba mu dëgër ñu pare nag tee gémmiñu bëy bi mu jaaxaan mu daal di ne waa ji mbooleem li la doon gàllankoor cet làmmiñ maanaam umu gi nga umu yëpp ak say jàngoro ak say rab yépp dana tàggook yow jaar na ci ndoxu jaanama bi moom lay xol bay bi nii ñu solal ko bay bi ak kii yuuxoom alors forcé ko ba un litre lëmm mu naan ko ba mu pare nag bay bi ñu rey ko def ko ay saam nangami saam ba pare mu joxe ay ndigal pour waa ji dem sarax kii na nga ko jox puune bii na ko sarax ku handicapé bii nanga ko sarax laa mu ne ko nag léegi seg nga wicc yépp tàggoo nga ak moom te di nga dem ba teg sa bët naar yi nag bi sang bu tedd bi say naa ma xeexee bokkaale màkk ndax kaaba gi xàmbala woon plus de 360 dieux statu et totems bu ci nekk ak fonction ba mu xeexee yooyu qui est une autre histoire c'est le pacte de Hudaybiya ba ñu samp drapeau la mag ba shahadaat bi jib ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ba la sourate de l'unicité wàcc xul waxal allahu ahad yàlla kenn la allahu samad lam yalid walam yuulat jurul kenn te kenn juru ko wallam yàkkun lahu kufuwan ahad fii ba àddina di tukki du am kenn ku ko mën a diir mbagg bokkaale jeex mag ñi nga xam ne nangu nañu le message divin daal di tuub daal di jibal seen shahadaat ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah seede nañu ne yàlla kenn la te Seydina Mohamed mooy yonentaam ñi nga xam ne dañu xëroon ci xërëm bokkaale ak musrikiin xaajatuñu màkk ñu gàddaay nekk des milliers daal di génn màkk tasaaroo dans toute la péninsule arabique ñee nga Koweït ñee nga émirats arab nga xam ne Dubaï fa la ne wàcc nañu ba ci Afrique nord Égypte ba ci pays Maghreb yi alors Dubaï nag daf ci bari leen ñoo xam ne danga leen di gis sol jàllaab yu rafet ba tubaarkàlla ba boo leen xoolee defe ne ay sëtu yonent bi maari day taali ndekete ñu ngi ci yu bon yooyu alors seen wàllu sàmm seen alal nag jaral na leen lu ne il paye des milliards ci ay xërëmkat ay féticheur naar ñu di leen sàmmal seen patrimoine foncier alors kon naar yi boo gisee jigéen ju taaru ñëw ñu ne soxlawuma la ci lala soxlawuma nara dara lu dul tiim la kabine sa kaw loolu yéen wul maanaam mën nañ jàpp ne sax affaire visu déviance sexuelle boobu ñoo wax scatophilie la waaye yemuñu ca loola ñu ne la da nga koy lekk alors effectivement ndaw si lekk ginnaaw këru naar bi naar bi léegi set na wicc ay ayibam ay catam ay làmmiñ ak umu génn na ànd ak nefereem ndaw si eh, góolu ko lekk ko alors moo tax nag mbooleem ñi ko def gisoo si kenn ku am mujj gu rafet ñi jëlee nañ ci jàngoro ñii jëlee nañ ci dépression am na ku ci jëlee dépression te li mu ci am ci alal bari na de c'est une ougandaise baa ngay def buzz ci réseaux sociaux yi ba muy yéeg septième étage ci immeuble ba mu dëkk tëpp dans le vide xaru xamul sax lu ko ko defloo alors kon nag c'est un drame poignant rawatina épargné wul le sous-continent le Sénégal a été impacté ak 43 personnes il de a des miss Sénégal am na des ex-animatrices télé ak rajo am na deux ou trois homosexuels euh, ak ñoo ñu tuddee des influenceuses influence influenceuses mooy mooy lan ci àdduna kan la ñuy influencer et influencer vers quoi mën naa jàpp ne sax Sarata Aydara bi moom moo mérité le qualificatif d'influenceuse parce que émission yi muy def mu ngi def une influence positive dans l'esprit des des populations particulièrement des jeunes di leen xiir ci lu baax ñii la ñu war a tuddee influenceuse waaye koo xam ne yow la nga sol sax xàpp yëpp a ngi ci biti nga naan influenceuse laa koy influencé ak jëmale ko ci lan alors kon c'est pas étonnant ñooñu bokk ci victime mu naar yi Mali affaire ba laal na ko euh, Guinée Conakry Burkina Faso euh, Cameroun ak Côte d'Ivoire ñu ngi remercier le révérend Camille Makosso bi nga xam ne euh, lii jot a génn ci presse bi moom moo def gëstu boobu parce que il est très réseauté am na ay talibé un peu partout dans les pays d'Afrique noire francophone te li ci am solo information yi tax na am na ay autorités yu ci commencé jóg fii nag maa ngi dégg ci réseaux sociaux yi ñu naan waaw lii yoonu état nekku ci parce que ñoom c'est des majeurs effectivement ku bëgg tukki ne damay dem Dubaï ak lu ñu la fa dikk loolu te nit ki di majeur ku ci mën dara dañ bàyyi. Mhm. alors effectivement majeur bu jógee yëre paasam ne damay dem Koulikoro mbaa damay dem Dubaï am na ci droit parce que dañu nekk dans un pays de démocratie où la liberté d'expression de, de, de circulation des personnes et des biens est garantie par la Constitution dëgg la amoon na fi temps avant ñuy am euh, alternance euh, bi fi Senghor nekkee ni mu amee des visa d'entrée pour boo bëggee dem ci tel pays nga am obligation dem ci ambassade bi ko fi teewal remplir les formalités am visa pour entrer ci dëkk boobu de la même manière dafa amoon au niveau du pays de départ muy le Sénégal et on n'était pas les seuls en Afrique mu amoon visa de sorti c'est-à-dire jamono boobu boo waree tukki nga ne damay dem France dañ laan loo fay wut fan ngay dal et ñi ngay ñëw après si les informations sont crédibles ñu jox le visa waaye nag bi Abdou Diouf remplacé Senghor le premier janvier 81 si la ñu supprimer visa de sorti amatul kon ku bëgg di dem Dubaï kenn mënu ko empêcher kon c'est pas une affaire d'état état bi kay li mu mën a def mooy dimbali ña dem te tag fa dëgg am na ñu dem lekk seen xaalis bu bon boobu la ñëw foofu tamit euh, bañ a joxe seen tour moo gën parce que xëy na jubluwuñu ci mbon <laughs> waaye dañ leen nax piéger leen te dañ fi bàyyi ay doom et autres waaye am na ñu dem ñu diggoon leen des emplois domestiques gardien mbindaan euh, et cetera euh, employeur bu malhonnête la mu njëkk a def mooy dafa jël sa passeport confisqué ko parce que kooku xam na ne la mu la bëgg a def loolu du lu du lu du lu du lu dëppook yoon ñooñu laa wax ni l'État n'a pas le droit de les abandonner te exemple bi ma joxe dans beaucoup d'émissions te bëgg état bi bàyyi ci xel c'est l'exemple du gouvernement camerounais am na ay autorités de l'État yu ma yónnee témoignage wu benn rescapé mu expliquer naka la ko gouvernement am dimbalee ba mu mën a ñibbisi ndax patron dafa confisquer passeport am waaye mu dal di lal pexe mais comme que fii la police des étrangers est très sévère léegi damay violer la réglementation ma génn sans papier en sachant pertinemment que dinañ ko jàpp parce que amul kayit waaye moo ko def exprès mu génn police bi contrôlé ñi nekk en règle laaj ko an sa kayit yorul kayit ñu yóbbu ko embarqué ko bu ñu la embarqué na dafa am fu ñu lay yóbbu foo xam ne dafa nekk su la supervision de la police des étrangers nee na foofu gis naa fa ay Sri Lankais ay euh, ak yeneen i nationalité waaye nee na nee na elle reconnaît que traitement bañ ko fa doon def c'est mille fois meilleur que l'enfer qu'elle vivait ba mu nekkee ci loxo patron alors par la suite nag ambassade u parce que ñoom bu ñu procéder à des arrestations dañ koy siiwal ambassade u Cameroun ba ne foofu yëg ko daal di am droit de visite rendre compte ay autorité ñu daal di jël ay matuwaay comme que seen passeport saay-saay yi jël nañ ko alors ñu daal jël ay matuwaay utal leen ay sauf-conduit diplomatique exfiltré leen ba ñu ñibbi seen dëkk loolu nag la ñuy ñaan président de la république Macky Sall mu inspiré wu ci pour ñu mën a sauver ña fa demoon en étant animé de bonne intentions ay jigéen ñu baax bëgg a dem daan seen doole am fa lu ñu mën a suturaale ak lu ñu mën a terale seen njaboot ndekete la ñu leen wax au départ ak lañ fa fekk yàlla ak yàlli la ñooñu ñu mat a dimbali lañ ñu mat a taxawu lañu fexe ba localiser leen identifier leen utal leen i këyit ak i moyen ñu ñibbisi loolu nag mooy euh, appel bi may tëjee. Mm. waaye nag euh, sans euh, soñaat xale yu jigéen ñi ak xale yu góor yi ñu ànd ak dal dëgg dëkk bi dara neexu fi Afrique d'une manière générale ndax crise économique bi c'est partout waaye mar naan ni ko kocce di waxee bu mu la jaral naan petite ndax bu robinet yi tijjee te tôt ou tard robinet yi day tijji ndax le Sénégal sera un pays pétrolier à partir de 2023 2024 bu robinet yi tijjee da ngay mujj ruus Koweït a ngi nii euh, pardon Dubaï Dubaï émirat arabe la la la bokk kañ la kañ lañ ko créé 71 bi waaye yàlla daf leen wërsëgale pétrole ba naataange bi ak koom bi mu nga fay baawaan di fa saawaan ba tax na ñoom du ñu fay courant c'est l'état qui prend ça en charge du ñu fay ndox état moo koy jël en charge taxe municipale itam jéggal nañ leen ko ñaareel ba benn waxambaane ak njagamaar bu tollu ci takk sëy sa première kër état moo la koy may après nag boo liggéeyee ba am moyen bu la neexee nga toj modifier wala donc logement sociaux yi état bi daf koy maye dëkk bu am naataange la te 71 la ñu départ kon xale yi nañu muñ xam ne Sénégal yàlla duñu seetaan yàlla dinañu suturaal te nag jigéen ñi def yooyu na ñu xam ne euh, li ko génn ci réseaux sociaux yi naar yi la ndax kenn euh, bañul sa bopp bay xaw yi sa sutura bopp ñi ñu def la yu ñaaw yooyu la jël ay cabinet nga di lekk ko am na ay jigéen yu ñu woon ci photo ñu di ko lekk ci mari day taal ci réseaux sociaux yi loolu c'est très simple mooy naar yi bu ñu toogee ba déwén ba tollantiwaat seen musiba boobu léegi ñuy lijjantiwaat jaar ci intermédiaires yi ak filières yi pour uti keneen mais cordonniers yi nee nañu on est toujours mieux avec ces vieilles chaussures tubaab nee na on ne gagne pas une équipe qui gagne on ne change pas une équipe qui gagne kon ñoom lu ñuy def dañuy jëlaat seen agenda contacter ña fa ñëwoon daaw waaw bu ñu la woowee nga ne ah vraiment loolu bëgguma duggaat ci loolu métti na lool 10 million neex na waaye lii dama si jël wéradi am si cas de conscience sa moroomu doomu aadama comme yow am dignité comme yow yeb bi ay cabinet nga lekk ko loolu daal vraiment naar bi ne ko eh di nga ñëw wala doo ñëw mu ne noonu du ma ñëw mu ne ko boo ñëwul ma génne audio yi de euh, ak vidéo yi ak photo yi nga bi mu gisee ne ñëwuloo ñu jàllale ko moo tax euh, audio yi ak vidéo yi ñu ngi takkarnaase ci réseaux sociaux yi c'est pas les victimes ñoo ko génne parce que benn victime doful musiba bu day noonu ak respectabilité bi nga am ci si sa dëkk ba nga jóge ñu di la ko photo di la filmer yow nga di jël di di bàkku di ko def xel demu ci te néegu jàmbur la kenn amu fa agse ku dul borom kër gi la fa woo te nekk ku saay-saay moom moo ko photo moom moo santaane ñu filmer ko kon bu génne ci réseaux sociaux yi ca moom la alors danger bi nag te fi ñu ubbee waxtaan wi euh, firndaal na ko ndax sama métier la maanaam maa ngi yëngatu woon vingt 24 ans ci nouvelle technologie de l'information de la communication danger bi mooy photo yooyu tasaaroo ci réseaux sociaux yi nekk dans les serveurs informatique de YouTube et, et autres Instagram euh, WhatsApp et euh, Facebook na ngeen xam ne serveur informatique yi dañu am de dure de vie de trente ans te dara gënu la ñaaw euh, nga dem ba ma nekk mag parce que yéen a ngi nekk ay jeunes filles ñu naan leen influenceuse ak tiktokeuses mais euh, at yi day dox mm-hmm. te ñaan yàlla fan wu gudd rek alors ngeen dem ba nekk mag imagineel sa doom wala sa set benn xaritam bu saay-saay ne ko waaye yaa ngi tiitaru seen étage R plus 2 bi ngeen tabax ak Mercedes bi garé seen kër eh, eh, eh, jarul tiitaru daal di ko woon photo yi ne gis nga sa a ngi nii wala sa yaay ngi nii li ko may alal ji yëpp mooy da doon lekk ngeen bal ma ci kàddu ji da daan lekk pou naar ñu di ko fay kooku sa doom wala sa set bu ko déggee mën na ko def choc ba mu xaru ji kon arrêté leen yi ngeen di def bàyyi leen mbirum Dubaay bi ay seen i morom yu dul jeex ñu ngi toog fi ci dëkk bi daan seen doole di am seen dërëm ak i ñaar dërëm mais dans la dignité di gagner leur vie à la sueur de leur front loolu mooy appel bi ñu leen di lancer waaye nag état bi appel bi mooy ñu ngi leen di invité ngeen jël contact ak ñun Jamra am nañ ci dossier bi ay information yu kenn mënul wax ci télévision ñu jël euh, ay matuwaay ñu sowe ña bloqué fële te bëgg ñibbi te amuñu këyit te nag nañu bàyyi xel ne am na ñu ñu porté disparu dans d'autres nationalités xamuñu fu ñu ne est-ce que jaay nañ leen est-ce que dañu leen faat dans le cadre des trafics d'organes parce que lu ne am na mm-hmm. da nga gis benn rein ñu di ko jaayee quinze millions ku ñu war a def greffe de poumon cinquante millions te xam nga borom barke yooyu dañuy topp bànneexu àdduna yàq seen vie ndax alcool drogue ak sàngara ñu gàtt fan la ñuy doon waaye bu ñu demee ba am certain âge dem jënd des organes humains donc ñooñu ñu porté disparu de plusieurs nationalités africaines kan moo xam lu leen dal yàlla rekk xam kon nag destination du Dubaï bango ku mu neex nga dem waaye bul ne kenn avertir la woon bul ne TMS TV n'avait pas alerté bul ne ay dara waxuma ko woon dégg ngeen ko kon nag yàlla na yàlla sàmmal ñu suñu réew yàlla nañu yàlla sàmmal jeunesse bi yàlla na leen yàlla dàqal seytaane yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi te làqal ñu Sénégal fu yàq yeggul waa salaamaaleykum wa rahmatullah. waa balaa ngaa dem may ma tuuti rek suñu dernière question nee nañ euh, lu duuf ci nag li xejul ci cin bi waaye suñu dernier question muy à ce que euh, nga wax ñu Jamra fan la toll maanaam ci dissoudre li nga xamante ni moo di commission Miss au Sénégal. waaw loolu. combale boo xam ne incha allah tàmbali nañ ko am na fu ci toll waaye dañuy wax naan euh, kuy yor doo saxat ndax saay-saay boo koy boo koy boo koy bëggee ndar kepp ba neutraliser ay caay-caayam <coughs> bu xamee fi nga koy jaar dafay brouiller toutes les pistes waaye Miss Sénégal baaxul Miss jongama waxi noppi ndem si yàlla si Moïse Ambroise Gomis seeti nañ ko budul benn yoon bu ñaari yoon pour alerter ko nee ko ci sa staff xëy na yow du sa yéene mais am na ay saay-saay qui joue le rôle de rabatteur d'intermédiaire de macro di utal ay boroomi alal ay jigéen te yow doo ko yëg ñu di ci am xaalis waaye il avait pris ça mal euh, ba gis nga Jamra daal di retiré wu waaye kii aurait pu imaginer que 2020 2021 2022 bi la Jamra doon wax scandale bi ne tël fii ay miis wax ñii naan ay kilifa ma ëmbal te ba tey xaw ma bàyyi bi kan la ñii naan ba concours miss ba jeexee dañ ma yóbbu fii ci euh, euh, Diass benn hôtel ma fekk fa ay naar luy ndey loolu bu concours amee ba ñu xam kuy premier miss bi couronné première dauphine deuxième dauphine boo leen di neexal ku ne am sa neexal waa doo bàyyi doomu jàmbur yi ñu ñibbi. nga ne dañ leen di yóbbu présenter leen des autorités autorité wu lan autorité saay-saay way moo tax ñun dañuy continuer suñu combat pour la dissolution de cette mafia de Miss Sénégal et de Miss Jongama dafa xaram ngor bu ko dina bu parce que yow amagoo jëkkër ndax Miss yi en général ay kii ay jeunes fii célibataires nga ñëw di exposer say cër ay caméra tiim la des million de bëtu góor tiim la ku ci nekk ak sa xalaatu caay-caay di njaaloo ak yow virtuellement ah loolu l'islam mën na koo gërëm lislaam gërëm ko te ñooñu duñ sa ay jëkkër sëyoo ak ñoom ngay ñëw di offrir say cër dama ne ku mënti organiser lu mel noonu def nga loo xam ne ngor bugg ko diine bugg Jamra va donc continuer son combat parce que balaa ñoo am jàmm te dinañ def le tour de toutes les cités religieuses mooy ñu dissoudre cette mafia de de de d'organisation de de de comité Miss Sénégal qui n'est qu'un promontoire buy may bunt à des proxénètes à des pervers sexuels ñu mën ci porox ndollu di yàq doomu jàmbur yi kooku c'est inadmissible et dinañ continuer incha allah def ci liñ ci war a wax te fi mu ne on peut pas dire nous en sommes waaye dinañ continuer xeex bi parce que du ñu nangu des gens qui se font de l'argent des centaines de millions sur le dos de jeunes fii mais am na benn miss bu ma waxal elle n'a pas été euh, sélectionnée ci édition yi mille dix 2018 mooy jamono bi fi Ambroise nekkee mais ba ba ma xoolee CVM dama waaru parce que man j'étais président du j'étais le comment dirais-je euh, j'étais quand même chef du service informatique du CISES mu ne dafa bëgg ma am ku ma ko ku ma ko booleel comme stagiaire parce que def na tuuti opérative de saisie waaye ba ma xoolee si CVM master de en commerce international la kon kooku bu demee ba dugg ci affaire u miis yi ñàkk pexe tax kon nañu bàyyi di exploiter la pauvreté ak tamit la crise économique di dugal xale ji jigéen ñi ci musiba la preuve liste bi Makoso euh, publie onze mille a ngi ci biir am na ay am na ñaari rappeur ñaari góor jigéen ñaari animatrice de télé et de rajo ah ak xawma ñaata influenceuse influenceuse mooy lan influence bi sa influence bi dafa amal kenn njariñ loolu di dugal xale yi ci musiba mm-hmm. te influenceel sa bopp pour nga génn ci mafia Dubaay bi moo gën mm-hmm. voilà kon jërëjëf Sarata ah, appel baa ngoog mm-hmm. yéen waa TMS seen jaan wàcc na ñu ngi ziyaare kilifa gi Thierno Moulay Sow eh, di sàkku si moom ñaan mu ñaanal dëkk bi ndax eh, lii xeeñ neexul te li ci gën a metti eh, victime yi mooy néew ji doole yi les jeunes fii parce que ñu ci bari bëgguñu bon waaye ay ay saay-saay seeni tonton saay-saay bëgg xaalis nekk intermédiaire entre ñoom ak mafia Dubaï bi ñoo leen dugal ci na dolli ñaan yal na yàlla sàmm réew mi yal na yàlla aar xale yi def jàmm ci Sénégal làqal ñu Sénégal fu yàq yeggul waa salaamualeykum wa rahmatullah. kon jërëjëf euh, monsieur Mactar Mame Mactar gi donc amati mbégte contentement fidèle ak yow li nga xamante ni moo di grand entretien donc message bi foog naa jàll na donc alerte bi istam jàll na donc jeunes yi ak ñi nga xamante ni ñu mel ni man. te bëgg réussir te am lu ñu bëgg seen àdduna bëgg jàppale seen i waajur wala nekk dara ci réew mi donc bu mu leen jaral li nga xamante ne lu ñaaw la donc nañu muytu ah te yàlla nañu yàlla sàmm itam donc parce que nul n'est à l'abri donc yàlla nañu sàmm yàlla nañu yàlla jàppale ñu jox leen dig daje rek ba beneen yoon incha allah ci seen émission grand entretien